rax ci dolli ni bu ñu nekkoon ci réew mu normal famille bu nekk boo xam ne tey teg nañ lorange bi nguur gi dafa na jël ndàmpaay gu duuf gu duun teg ko salo loxo naam remplacé wul bakkan bi nga ñàkk waaye diine gi ñu gëm sax ñun diine yi ñu gëm bopp dafa ne ku rey te tey ko te tey ko ne maa tey rey kooku dafa fu ñu war a jaar moom